làmb ñu bëri dañ ciy wax waaye Sénégal dañu war a yeewu ci làmb dama am ñaari anecdote yi may joxe ëpp na ko sax mais temps bi duñu ko may nañ jël ñaari nit ku mel naka Yékini ku mel naka itim Tyson <clears throat> Mohamed ndaw Tyson mi ngi peser cent soixante quinze kilos gudd ci dayoo deux mètres xool leen bu baax a baax li may wax dem na ba ci fin carrière am dañ ko yàq Mohamed Ndao Tyson dañ ko yàq carrément Mohamed Ndao Tyson buy léwtoo day daanu buy arrière day daanu day jékki-jékki sax dóor boppam bi ci suuf këpp loolu ngeen yaakaar ni loolu normal xoolal ku mel ne que Yékini lan moo ko yàq mooy nit ñi dañuy yàqante nit ñi bëgg ñu ko leen raw nit ñi bëgg ñu ko leen gën làmb ji nag yàqante gu méttee méttee métti mi ngi ci biir te gars yi capable nañu lu ne damay wax gëléem guy dund te loolu lañ ci gis te ñun yàqin la ñuy waxee te lii moo ci am te dañ ci nar a gis ki xamante ni victime la man ni ma waxee nee naa kii victime la soxlawuma ci dara te yàlla tax mais damay wax nii Sénégal xool leen bu baax ñaari mbir yii nar a bëri déglu leen tëkkante yi nga xamante ni ñoo ngi koy am jëmale ko ci biir làmb ci ci àdduna ma wax la benn affaire ci àdduna ñëpp mooy njëkk a pare ba mu des ci yow ci àdduna à la vie sa vie yow. gis naa yi dënn ñëw di yëg. da ngeen di feetu tey tey ngeen di feetu seen feet tey la yem le treize incha allah dañ leen di nangu yóbbu leen bu soobee yàlla. kii ñaanoo ko waaw boo ko deful sax wala nit ñi sax am nañ la gisee ci làmb dañ naan kii dafa yab nit ñi. boo woon yàlla dogal ñu daal la kii dafa yab nit ñi. Mhm. dafa yab nit ñi. waaw parce wax dëgg ak musique ñoo ànd. Mhm. ñun fi ko fekk. Mhm. waaw te gis na làmb tey nu demee. Mhm. waaw sëriñ bi jërëjëf man moom yàlla dogal na wutuma buzz ndax alalu sëriñ Touba la taalibe sëriñ Touba la taalibe sëriñ Touba la maa ngi tudd sëriñ Cheikh Mouhamad Lamine Bara Fall Cheikh la man maay sëriñ Cheikh Bara Fall mu sëriñ Cheikh Bintu Fall mu sëriñ Modou Ablaye Fall Ndar kon man wutuma buzz. fukki at ak juróom maa ngi liggéey ci télé liggéey ci média liggéey ci presse fukki at ak juróom maa ngi géej waaye arrêt du balees nekk ci sama cabinet fii di ci liggéey te wutuma oto ñaanuma oto kon su ma demee ba gis li nga xamante ni dafay gaañ Sénégal wutuma ci buzz man am naa buzz ba noppi kon wutuma buzz li nga xamante ni moo ci nekk ñu jël gëléem buy dund di ko suul ci armée pour mbër nar ci yàqu man loolu moo mu tax a jóg pour joxe ci ay sarax joxe ci ay tegtal joxe ci ay ñaan xool sénégalais yi nu ñu mën a def ba ñu protéger suñuy armeel parce que at yi ci ginnaaw nañu bàyyi xel ni yu ni mel bari woon na fi trop dugg ci armeel bi sulli ay néew dugg ci armeel def yu kenn xamul te capacité nit ñi jamono ji bëgguñu ko baax bëgguñu numéro 1 képp kuy numéro 1 ci lu mu mënti doon nit ñi daañu xefee ba fay sa lampe pour mën a taal seen lampe lu nekk daf leen koy jaaral waxuma sax gëlëm gëlëm gi bàyyi ma la gëléem dafa nekk bàyyi ma bi nga xamante ni rawaanam dafa soor mais am gëléem bàyyi ma la comme xar gëléem bàyyi ma la comme nag gëléem bàyyi ma la comme leneen ak leneen mais nit ñi jamono ji ñi may dégg xam nañ bu baax sénégalais xam ngeen bu baax li may wax làmb ji fi mu toll gaay yi mbër yi li ñuy def ba daan ak li ñuy def ba yàq leen ku mel ne que ñi ma wax ñaar ñi ma tudd sànq ñaar ñooñu bu buñ la toogoon ci caméra bi ñu taal ko ñu wax leen ñoom ñoom xam nañu li ñu leen def ba yàqal leen bu ñu leen leeraloon ñoom li ñu leen def ba yàqal leen ngeen def seen génn man li ma gis ci combat bi ëpp na sax li ma wax ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem man bëgguma jàmm laa bëgg ak salaam laa bëggal Modou Lo yiw laa ko ëmbal Balla Gaye itim yiw laa ko ëmbal moo tax dama bëgg ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ñoom ñaar ñu am jàmm ñu am salaam bu ñu kombaawee bëri ci jàmm ak salaam ba pare dara bañ yàq-yàq bañ ci am kon li ma waxoon loolu lu leer la lu wér la lu weer la incha allahu rabbi nag am na ci ay encadrement yi ñi ma ci jot a dégganteel ba jox nañ leen ay sarax gratuitement ñaari mbër yëpp ak seen staff ñu may dégg fi ma toog kenn mësuma cee jox dërëm l'islam moo ma tax a jóg l'islam moo ma ñor ak diine ak charia bëgguma suñuy armeer ñu laal ko loolu mooy li nga xamante ni mooy li ma ci wax. li nga xamante ni il faut ñu leeral ko parce que yaakaar naa bu ñu waxee lu ñu mel ba bépp organe de presse bu nekk Sénégal ñu gis ni relaté na li ma wax kon dafa laaj leeral. kon il faut ñu leeral ko bu baax a baax a baax a baax xamal mbër yi euh, xamal àddina xamal ëglu làmb fii làmb ji toll làmb ji fii mu toll jamono ji ku ni mistigul da ngay wax li nga xamante ni mooy sa tayefu bakkan ñëpp xam nañ ko ñaata nit ñi nga xamante ni tey jii am nañu doom jour combat diw ak diw ak diw jour boobu la ñu gëj a gis seen doom ñaata nit ñoo yàqule ci yu mel ni ay doomu aadama yu bari yi xamante ni dañ leen di sacrifice si nga xamante ni mooy combat yi kon li ñuy wax mooy nañu bàyyi xel pour bàyyi xel mystique bu dangereux bi nga xamante ni am na ci làmb ji te xam ni làmb ji jaru ko ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem incha allahu rabbi man de jàmm laa waxoon sànq moom laa yi ëmbal Balla Gaye ak yiw moom laa ëmbal ak Modou Lo yiw rek laa leen ëmbal ñoom ñaar ñëpp askan bi li may teg seen loxo mooy képp kuy nitu diine képp ku ko mënta yàlla tax bi isnillah képp ki nga xamante ni yaa ngi yor daara yor ay gone yor ay ndongo di leen jàngal ñoo nañu wacc ay kami, lolu moy li ci ëpp doole li ci ëpp solo benn sarax bi nga xamanteni ni feñna ci moy nañu togg ay bernde def ko sarax ci ñaari kaw mbeur ay bernde ay sarax nañ ko togg joxe ko te boole ko ay fruit moy sarax bi nga xamanteni ni allah rabbi modu lo dara du ko dal insha allah rabbi balla gay itim dara du ko dal jam ak salam rek lañ leen bëggal yàlla ci boppam bañ ko sonalee ci ay laaj ak ay werante dafa dem ba wax ni képp ku bëgg gëm na nga gëm ku bëggul gëm sax na nga bàyyi noonu ndegam suñu borom nag moo mën a waxee noonu sàkku maag ñun ay doomu kaadama kese lañ li ma ci yokk leeral rek mooy waxuñu suñu tayefu bakkan wa ma shay'na illa bi maxliqna fa man shaa fala yow wa man shaa fala yakfur jërë ngeen jëf